di nuyu itam nag njabootu sëriñ Moustapha Bachir gi sëriñ Moustapha Nawel yebal sëriñ Cheikh Awa Balla mu teewal ko fi ànd ak rakkam sëriñ Abdul Hakim te sëriñ sëriñ Cheikh war a dem aéroport léegi ngir kenn ci njaboot gi ku noppaloo bitim réew mu war a dem aéroport teeru ji ko loolu moo ko tax a dem bàyyi fi sëriñ Abdul Hakim mu toog di nuyu Serigne Cheikh Mbacke moom Cheikh Abdoul Hakim mi nga xam ne mu ngi fi nekkoon ci bëccëg ak sëriñ Salihu Mbacke bu Serigne Murtada maa ngi nuyu mbokki njabootu sëriñ Touba gi fi teew gépp di nuyu kilifa diina yi fi teew yépp su ma ci tuddee Serigne Madick Seck mi daane léegi ak Serigne Abdoul Qadir Bousso mi jàkkaarloo man. nuyu naa mbooleem kilifa ak diine gu fi teew di nuyu nag suñu xaritu bopp waaye di ndawal suñu kilifa di ministre directeur de cabinet bu président de la république di Augustin Tine monsieur ministre maa ngi lay nuyu di jaarale ci yow nuyoo mu dem ci délégation bi nga àndal bépp su ma ci tuddee sama mbokk daara Madoune Mboup di sous bu bu ba tudd Talla Diagne ak mboolem maire yi mu àndal Mbay Jonn nekk fi Daouda nekk fi ak ñeneen ñi yeble tudd Chérif jaañ di directeur d'ailleurs de liggéey ci cees liggéey bu am solo tudd président Abdoulaye Dièye daaw fi la teewoon ren teewaat na fi nekk ku am Pastef yàlla dogal na nu daje Makka ren ma di ko seetlu ci Arafat mu fab léppam jébbal yàlla tudd sama xaritu bopp ministre conseil bu président de la république di Ibrahima Ndoye conseil spécial bu président de la république Isma Dioum mi ngi fi woon tudd honorable au conseil des collectivités territoriales sama jigéen yaayel li jaarale naa ci ñooñu nag nuyoo nuyu delegation bi di nuyu président de la république mi leen fi yabal di nuyu mbokk yi yépp bàyyiwuma kenn taalibe yi dëkkandoo yi xarit yi soppe yi wax ji du gudd ndax ñetti cérémonie yi fi am tey muy cérémonie bi jëkk a am ci kër Serigne Moustapha bi ñuy jàng alquran ak cérémonie bi nga xam ne moo ci topp muy seremoni bi nga xam ne masiratu zikra bi mu jeexee moom lañu ko def ñetti cérémonie yépp li ñu ci waroon a wax ñu war ko wax ci bis bi wax naa ko sama rakk Serigne Baba mu wax ko waxin wu rafet kon jàpp naa ne jataay bii wax ji mën naa gàtt ay message yu gàtt rekk lay joxe message bu jëkk bi mooy sant sama nawle doomi soxna yi bàyyi seen lépp te teew fi te saa bu ma woote itam ñu bàyyi seen soxla yépp te teew fi ma jaxasoo ak ñoom jaxasoo bu yàgg ñu muñal ma sama sikk te xooluñu sama benn ayib maa ngi leen di sant yéen ñépp di leen gërëm ñeen ñépp te nag innama yarifu alfadla li ahli alfadli zul fadl nit ku baax bu àndee ak nit nawleem day xool la baax ca moom di ko tudd te safaan ba ñu bàyyi ko sama nawle doomu soxna yi noonu lañu ànde ak man di nuyu dëkkandoo yi nga xam ne ñi ngi ànd ak man ci diina ji te diine ji moo làmbaale politik bi sëriñ tuuba dafa mas a wax taalibe yi ne leen mbaa jàng ngeen àdduna ba xam ko balaa ñu koy tontu mu ne man de jàng naa ko ba xam ko kon nangeen ko jàng ba xam ko waaye su ngeen ko jàngee ba xam ko bu leen ko bëgg wattandiku leen ko ndax bëgg àdduna day yàq àdduna te balaa bàyyi yàqaale àllaaxira kon àdduna de su ko sànni alquran sax daf la wax na ne wala tansa nasibaka min addunia waaye nag le plus important mooy wa ahsin kama ahsana allahu mooy àdduna nanga nga ko téye li la ci yàlla cërale nanga nga ko téye waaye nga delloo yàlla njukkal sa borom xam ne lépp mooma lépp moo koy sottal kon maa ngi sant bokki dëkkandoo yooyu yu ma àndal ci diina ji ànd ak def ñoom ci defar àdduna bi monsieur le ministre bala maa dikk nag ci taalibe yi ginnaaw bu ma waxee sama nawle doomu soxna yi ak sama mbokki dëkkandoo yi yow laa ciy teg ñaari cër nga fi tooge benn cër bi moo la gënal ndax président de la république moo la yónni ne la nga ñëw teew fi waaye beneen cër bi nag sama diggante ak yow la sa diggante ak département bi sa diggante ak njaboot gi mooy ba nga doonagul ministre yaakaaroon ne ministre nga ngay ñëw di teew ci bis bi sa alalit di ci dem yàlla def la nga nekk ministre ngay ñëw di teew ci bis bi ba président de la république doonee président ba léegi at mu nekk teew nga fi teewal nga ko fi tey dama defe woon ne boo tuul délégation bi ñu yebal keneen ndax xam naa jamono bii nga toll charge yi nga yono xam naa lan mooy directeur de cabinet de président de la république waaye ci sa takku ci sa pasteef nga dogu ba président ne la demal nduuf nga teewal ma fi monsieur le ministre waxal président ne ko maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm danu amoon kilifa gu mag gu ñuy wax Cheikh Abdoul Ahad dafa waxoon ne ñàkk fayda du ma dugal ci gërëm ku ma defalul dara waaye man am naa ful ju toll ni ku ma defalul ma noppi waaye duma la gërëm bu ma la xas xarabul it damay noppi waaye duma la gërëm waaye am naa ngor nag gu toll ni it ku ma defal duma suul jëf dama lay gërëm monsieur le ministre maa ngi nuyu président maa ngi sant président te di ko gërëm fu laa ko teg fi ma ko teg mooy yow mat nga ci seede yaa ko wax léegi président yabal na la ay yoon ànd nga man toog ak président ay yoon président ba may wax ñëwal nu ànd réew mi ànd defar réew mi benn charte képp laa amoon ak président charte boobu mooy na ma jàppale ci sama njaboot gi loolu laa koy wax ci biir pale bi loolu lay wax ci réunion yi loolu lay wax ci tànt bii su ma fi toogee waaye nag àdduna mënul xëy jag mu ne su la defar xëy defar lépp mais président defal na ma as gor la in sha yàlla sax nee na la in sakartum la azidannakum waaye wala in kafartum inna bi la shadid su ngeen ma santee ma dolli leen la yàlla wax su ngeen goree dee nag ba suul sama jëf ma téye sama yëf maa ko moom te sama mbugal dafa tar mm-hmm. dem yàlla bëgg ku ko sant asta doomu aadama mm-hmm. li ma gën a soxla ci sama commune bi mooy sama njaboot gi nekk ci lëndëm dugg ci leer di taal muy courant mooy yoon wii di ñëw sama sëriñ yi sama kilifa yi di fi jaar di ma fekk si bu ñu solatee ay yére bu ñu dikkee du fënd ndax mënuñu maa ñàkk a fekk si fu ma nekk dinañ ma fa fekk si te man it su ma sañoon duma leen fitna moo tax yoon wi ñor na ma lool président nag li ma defal mooy bi mu dikkee yoon wii moo ko defaraat ba mbeewal waaye moo ma ko xottil nag wax ma ci biroom te nga fekke ko te booba Mor Ngom ma nga fa toog mu ne ànd leen ak moom mu jaar fu ko soog ngeen jaarale fa yoon wa ba mu taqoo ak yoonu njagañaaw wa danaa ko godrone loola mu waxoon def na ko yoon wi taqoo na ak yoonu njege njagañaaw wa 26 kilomètres nee na dina ko godrone ginnaaw nag def na def na latrik bi te ne dinaa godrone man gëm naa ne dina godrone président defal na ma président Senghor moo fi jiitu woon ci sama commune bi bi mu fi def courant ay quelques dëkk la fi def courant te dëkk yooyu dafa wàcce courant bi ndax dañoo sës ci tali bi nga xam ne mooy route national numéro 3 te haute bi jaar fa ñu wàccee ñu wàcce courant bi ci dëkk yooyu président Abdoulaye Wade bi mu ñëwee jàppale na ma fukki at ak ñaar yim fi am defal na ma juróom-ñaari dëkk def na juróom-ñaari dëkk courant ci commune bi Macky Sall juróom ñaari at yi mu am ci Sénégal defaral na ma juróom ñetti dëkk def na fa courant te juróom ñetti dëkk yooyu mu def courant niroowul ak yeneen dëkk yi nga xam ne moom la ñeneen def courant parce que juróom ñetti dëkk yooyu daf ca daf dafa dafa tàllal courant bi lu sori muy basse station bi door a wàcce courant ba xaalis bu bari lañ ca sotti juróom ñetti dëkk yooyu mooy Mbeewaan Caacaw mooy mbeewaan mbaafay mooy mbeewaan ndooral mooy mbulaxteel mooy ngoogam séréer samp na làmp yi kër ma njaay taal moo ca des samp nañu poto yi mbar jaag eggale moo ca des monsieur le ministre na ma président taalal nu mu gën a gaawee ngoogam séeréer na ma eggaleel mbar jaag te defaral ma kër ma njaay gëm naa ne nag président dana la li mu li mu yéene ci commune bi dana ko def parce que wóor na ma ne programme na ñaama gis naa ko wóor na ma ne programme na Jol Njaay gis naa ko wóor na ma ne programme na Njaarga gis naa ko wóor na ma ne programme na Sàngaay gis naa ko te yeneen dëkk yi yebal na fi équipe ngir ñu natt ko kon kooku def na dal njiyeen sarax coow li mën naa bari waaye boo xoolee taux d'électrification bu njiyeen sarax mi ngi ci cinquante deux pour cent Sénégal àggagul foofu kon maa ngi koy sant ci loolu maa ngi ko ciy gërëm la ca des muy sama diggante ak moom it maa ngi ko cay sant maa ngi ko cay gërëm waaye waxal ma président ne ko ñaari doléance la am moo ma gën a ñor mooy tëli bii te tëli bii kat ci liy développé réew mi la bokk. mooy sama njaboot gi muy dëkk yi ma dese te courant demagu ca mu àggaleel ma ko ci maa ngi sant bu baax itam nag di gërëm préfet ma sous préfet ma Madumbu di la ko seereel ngir nga seereel ko président. préfet yi fi jaar yëpp daa dañu taxawu liggéey bi waaye moom mii dafa ànd ak man di taxawu bés bi ba tey ci suba jamono ju nekk mi ngi may woo di ma wax lu manqué ba fi mu nekk nii bépp engagement boo xam ne état jëloon na ko ne dina ko taxawee ci màggal gi taxawee na ko fi kon nag maa ngi koy sant di ko gërëm di leen ko seereel sant nag boo ne nee jëf rek mu doy waaye sharaaga da cay amu yoon da caa war di amu yoon léeg ngir ñiy dégg sa kàddu xam ne li ngay wax lu am seere la moo tax ma saraa ko wax li nga xam ne moom la président def ci réew mi ci commune bi monsieur le ministre maa ngi gërëm président président mi ngi may jox at mu at mu nekk mu ngi séddale ci commune Ndiéyène sara quatre-vingt-seize millions deux cent mille ci ay bourse sécurité sociale 96 millions 200 mille monsieur le ministre amoo loolu sa commune te loolu la ma président defal fii ci Ndiéyène Sarax muy juróom-ñeenti téeméeri nit ak euh, juróom-benn fukk ak ñaar ñooy fayee ko ay bourse sécurité sociale ci Ndiéyène Sarax at mu nekk ñu fayee ko ñaar fukki junni ndax ñetti weer yu ne juróomi junni la maa ngi ko ciy gërëm di ko sant ndax sama njaboot la koy def defal su ma ko mënoon jox leen ko yàlla mën loowuma ko moom mi yàlla teg réew mi ci loxoom mi ngi koy defal njéen sarax man nag damay gore ku ànd ak man dama lay sant nga gore xamuma gore di te xamuma suul jëf te ku ko xamit nag duma ànd ak yow du nu bokk fu nu jëm bu loolu wéyee maa ngi sant sama kilifa yi nga xam ne nag ñooy samay kilifay bopp di waa kër Serigne Touba gis naa bu baax ni ñu ma jàppee sëriñ Abdul Akim a nga nee toog magam ne ko bu mu fi jóg te jataay bi jeexul Serigne Cheikh ma nga jóge dakaar ñëw sëriñ Cheikh Awa Balla Serigne Moussa Nawel yabal ko loolu rek doyoon na waaye xalif général de Mouride. yabal sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh mu sëriñ Abdou na ko foo man nekk loo nekk bàyyi ko te dem nduuf fekkeel ma jataay bi kon maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant man xam naa ne am naa kilifa te xam naa ne ku ma laalit di nga xam ne am naa kilifa waaye ku ma jege it xam ne am naa kilifa maa ngi sant bu baax waaye man it fas naa yéene nangoo am kilifa fas naa yéene yi topp kilifa sëriñ Mbay Jaxate nag waxoon na ne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 am naa kilifa bu ma doxee quarante cinq minutes danaa àgg tuuba bu may àgg Touba nag waa koo jëm Touba di fa dem damay ànd ak doomu xalif général des mourides jëmee ko sama kër mi ngi ñuy toog kon bu ma demee foofa danaa fa am fu ma dal kon maa ngi sant yàlla bu baax di sant samay kilifa bu baax yéen taalibe yi nag message bi ma leen di jox mooy bi nu leen aada woo jox suñu borom daal lim nu wax mooy atiu allaha wa atiu rasul wa ulil amri topp leen yàlla waaw gi nun ñépp a ci bokk nun ñépp man ak yéen ak ku fi teew ku fi teewul ñépp a ci bokk nun ñépp li nu war mooy gëm yàlla te topp ko kon na gëm yàlla te topp yàlla sëriñ fàllu daal jóge na ndindi jëm si tuuba bi mu dikkee ci yoon wi mu seen kuy upp oto bi di ko arrêté mun sëfoor bi bëgg ko romb mun ne ko taxawal mu taxaw kooku na ko yóbbaale ma mu ne ko yéegal mu yéeg xamul woon ne sëriñ fàllu la bi ñu agsee Touba kooku wàcc na ko mbàkke nii rekk la bu yowmal xiyaamee it fu ngeen romb yóbbaale leen yóbbaale nu sëriñ fàllu na ko waaye nan leen fekk ci yoon wi nan leen fekk ci yoon wi ku nu fekku ci yoon mën ñu la yóbbaale kon na fexee nekk ci yoon wi nekk ci yoon wi nag mooy gëm yàlla te nangoo jaamu yàlla atiu allaha wa atiu rasul am leen kilifa nun nag suñu kilifa mooy waa kër sëriñ tuubaa ñi bu nu ci xàmmee bu ndaw bi bu nu ci xàmmee bu mag bi bu nu ci xàmmee bu góor bi bu nu ci xàmmee bu jigéen bi war na noo am jom te am ngor te nangoo fay naar bi xoromam parce que xam war na noo xam li nu sëriñ bi liggéeyal gis li nu sëriñ bi liggéeyal ate o rasul moom dem na waaye nag ñi ko fi wuutu bu dee nun la al ulama warasatul anbiya nun nag waa kër sëriñ Tuubaay suñu kilifa wa ulil amri minkum yàlla mooy dogal mooy sàkk kilifa teg ko fi xam nga wa udil amri mooy mooy ñan mooy administration tàmbalee ca président de la république ba ci sous-préfet mi toog charia bu dee lislaam lan gëm warulu leen a foye warunu leen a wax lu ñaaw warunu leen a ñàkk déggal warunu leen a ñàkk topp parce que bari na loo xam ne topp sa bànneex la waaye topp du topp charia ab jullit bu gëm yàlla day nangu dogalub yàlla te day nangu it ne allahu aalamu xaysu yajcalu risalatihi yàlla du juum te mooy tànn kilifa teg ko ci kanam njaboot gi Macky Sall ca Fatick xamul woon ne dina mas a doon président de la république nekk ci pale bi yàlla moo ko xam tànn ko def ko fa kon nag boo ko dee xusi ak a wokk na la wóor na dogalub yàlla ngay xusi ak di ko wokk sunub sëriñ nag xam nga lu mu waxoon suñu borooma da ko ne yaa rabbi in aataytani fa shukru wa in manata fa ridan wa shabru da ko doon loo ma jox ma sant la ca loo ma xañ d'accord naa ca xañ nga ndax xam naa ne loo def doo def lu ñaaw nanu topp suñuy kilifa sëriñ Tuubaa moom mësula wuute ak kilifa gog àdduna lu dul kilifa ak àdduna ga da xeex ba ci tubaab yi ko fi jàppoon génne ko ci ak njabootam tas këram tere ko booteem yóbbu ko résidence surveillée génne ko réew mi exilé ko téye ko fa juróom-ñetti at delloosi ko bi ñu amee problème ci guerre 14 première guerre mondial Serigne Touba daa jël ay soldaar ci ay ay taalibeem def leen ay soldaar ñu dem jàppale ji tubaab bi te loolu fonk kilifa taxoon mu def ko te loolu am na firnde am na fii ci biir jataay bi koo xam ne ma nga ne toog boroom koppati mu weex mais baayam sama maam a ko joxe woon soldaar ci ndigalal Serigne Touba mu dem 14 dellu si waat 18 kon lii ma gis ci jamono ay caaxaan la nit day am kilifa nit day fonk kilifa daganut jaaduwut nañu wattandiku réseaux sociaux yi nga xam ne tubaab bi moo ñu ko ëndil nga mën a wéet ci sa néeg mbaa nekk ci sa oto wax sa kilifa lu jàdduwul même bu ko sa kilifa muñee topp la jalgati nga ci sa digganteeg sa borom ndax yàlla kat bu waxi kenn waxu yàlla la atiu allaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum kon yéen liñ leen di dénk mooy bu leen génn ñett yooyu gëm leen yàlla te nangu koo jaamu am leen kilifa tey déglu ndigal wormaal leen ñi fi yàlla teg ba ba leen fi yàlla yi jëlee yàlla nag moo fiy teg ku ko neex saa bu ko neexee mu ko jë mu jëlee ko fi bu ko fi tegee te jëlee bu ko fi sampum yàlla ku ko bëgg a buddi yàlla damm say loxo ba ca topp mooy liggéey leen te wattandiku ak tooñ na ngeen liggéey te wattandiku ak tooñ gis nga gor su gore soo xam ne day dund aw ñaqam baatam ni poto boroom xam-xam bu mag bu dëkkoon Égypte daf daan wax ne ida kaanat kalimat na min fashina kaanat na ala rasina bu nu demee ba li nuy dundee nu di ko jële ci sunu ñaq sunu baat ni poto ndax dañuy am liberté fu nu neex yëkkati suñu kàddu gor su gore su nangoo liggéey te du yàq dana liibar ni njugub ndax ku ko defal mu defal boppam ku ko defalut itam mu defal boppam bari na bari na bari na noonoo gi ngay gis bari na kañaan gi ngay gis bari na xaste gi ngay gis ñàkk nangoo liggéey rek moo tax say soxla doo ca mën a man dara nga mere ku la deful dara kon na ngeen nangoo liggéey te wattandiku ak yàq te dërëm bu lew bi ngeen di fàggu ngeen fàggu ko ci fàggu win wu neex yàlla ndax xër moom xér ba fàggu fàggu win neexul yàlla dalay sonal rek waaye du la tax a am lu la yàlla joxul woon na ngeen wattandiku tooñ wattandiku leen tooñ seen bopp tooñ sa bopp mooy yàq sa bopp ba boo waxatee koo waxal mu ne accam xanaa du diw tooñ sa bopp mooy melo mel melokaan woo xam ne doo jubóog say bokk doo jubóog say dëkk te kenn du doon sab xarit ku yor melokaan woowu tooñ nga sa bopp na ngeen wattandiku tooñ seenum nawle ndax tooñ seenum nawle benn mu fitnaal la mbaa mu mën laa fitnaal baal la nga rus mbaa boog sa kilifa dox sa diggante ak fitna ja te bu boobaa day tinu rekk kon dimbali leen nu ci tinu gi fas yéene leen a jaamu yàlla gën e, te wattandiku ak tooñ ba ñu bañ leen a tinu wattandiku leen ak yàq yàq gi bari na ci réew mi te liggéey di yàq du dindi ak ñàkk raw na fi nag yéen mbokki jigéen ñii nga xam ne lu góor ñi liggéey ngeen jël genn wàll nga boole ko ak li ngeen liggéey yàq ko ci bisub dimaas yàlla kat mooy yàlla yu bari yàlla da koo tere waaye yàq nag yàlla da ne bëgguma ko te it ñi koy def bëgguma leen kon nañ wattu ni ko yàq yi ci ndeyale yi yàq yi ci magale yi yàq yi ci ceet yi yàq yi ci njukkal yi am na ci yooyu sax nag riba la taalibe yépp ñoo ngi leen di digal ci kàddu kër gi gépp nañu nangoo liggéey te wattandiku ak yàq noo ngi gërëm ñépp nag noo ngi sant ñépp nag ku bëgg ku bëgg a jariñu ku bëgg a jariñu dangay ngay dangay ngay da ngay topp ndigalal yàlla ku bëgg mucc da ngay wattandiku tere yàlla ku bëgg a tedd dangay nangoo liggéey te bañ a yàq ku bëgg foo nekk mën a jaxasook nit ñi dangay yor jikko ju rafet te bubb mi ngay sol nga ne ko natt ci sa nawle bu loolu jàllee foofu lay daaneele sama kàddu sant ñëpp maa ngi gis Omar fay di directeuru ARD nekk ak ñun ci liggéey bi mi ngi ni toog ci suuf maa ngi koy sant di ko gërëm maa ngi sant commandant brigade gendarmerie boroom laxasaay yi ñu ngi nii taxaw fas yéene ànd ak ñun ba bis bi jeex maa ngi sant commandant bu sapeur pompier teel nañu fee ñëw lool maa ngi sant service du SEN semaine bi yëpp ñu ngi fi dëkk bi yëpp monsieur le ministre fompé nañu ko lu ñu war a taxaw def nañu ko maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp préfet CLD bi bépp engagement boo xam ne chef de service jëloon na ko respecté na engagement boobu maa ngi sant day gërëm di delluwaat di fedd li nag sama coloré sama diggante ak président de la république di fedd li sama engagement sama diggante ak président de la république jàpp naa ne diggante boobu yàlla mi ma bind bind ko dong moo ci man dara waaye doonut keneen ku sax bopp say tànk jë sa say tànk jëm suuf sa bopp jëm kaw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yàlla na yàlla guddal sa war yàgg sa taxawaay kon nañ tàllal loxo وصل دائما تسليما عليه من له انت مولد بسر واصرف قول من اراد درنا قبل وصول الى امين يلا نكو تيوي ديوين تمو عندك